coalition Yewwi Askan Wi retenir na la date du 25 le dimanche 25 coalition Yewwi Askan Wi di ci woo askan wi pour yeewi ji le président Ousmane Sonko ci blocus bi nga xam ni moom lañ ko teg le 25 boobu ñu bare ci diaspora bi xam nañu ni. daanu ñëw tabaski si moo tax ñu boole leen ci ak sénégalais yi nga xam ni boobu ba tey ñoo ngi taxaw di wax lii mënul nekk il faut ñu jóg ci il faut ñu xool nu ñuy def ñu nekk mën ñuy nekk coalition bi jóg pour yeewi askan wi ñu yeew suñu benn leader amul sens ku mënul yeewi sa leader noo mën yeewee ku mën yeew un de noo mën yeewee askan wi bu fekkee sénégalais yi wax boobu ba tey ni gëm nanu ni yeewi askan wi dafa jóg pour yeewi askan wi gëm nañu yeewi askan wi aussi nañu jàpp ni yeewi askan wi woo askan wi pour yeewi un des leaders le président Ousmane Sonko le dimanche vingt cinq à quinze heures fi ñuy daje daan leen ko communiquer nga xam ni foofu la ñuy daje ñun ñëpp bëgg nañu. képp ki nga xam ni tey jàpp nga ni danga war défendre le peuple sénégalais jàpp nga ni le président Macky sàll mandat bi nga xam ni yaaka ko joxoon toog na ni da nga ma ciy ñaan njekk loolu metti na la képp ki nga xam ni jàpp nga ni dund bu cher bii mu nga xam ni mi ngi la koy teg metti na la képp ki nga xam ni tey nasaxal na démocratie nasaxal liberté na le système électoral perturber le système sociale et système économique loolu metti na la le dimanche vingt cinq à quinze heures ñoo ngi la ci woo